ils ont dit qui a dit. non ils ont dit encore une fois je vous dis. attends non arrêtez biñ la xam nga lors de la xam nga radiation bi. Mhm. li ci li ci nekk de manière officielle. Mhm. il parle de probité. Mhm. li ci nekk de de manière officielle. dañ ne sanctionner. est-ce que vous avez lu le rapport du conseil d'enquête. ah non. vous savez li ça c'est un décret. le motif de la radiation dañ ne. ça c'est un décret politique. waaw ça c'est un décret politique c'est le président qui l'a signé. est-ce que on vous a lu le rapport. du conseil d'enquête mais mais rek mu signé. c'est ta hiérarchie moom moo transmettre. ma hiérarchie. Ah. c'est opposé à ma radiation. ah bon oui. le haut commandant de la gendarmerie le haut commandant de la gendarmerie. nationale en fait c'est pas le haut xam nga dama lay expliquer comment ça se passe xam nga bu problème amee. ce genre de problème on fait un rapport c'est-à-dire chef man sama chef day def rapport malheureusement le rapport qui a été fait ne ne c'est-à-dire rapport bi waxul lépp lu xew rapport bi xam nga lan la wax faute bu capitaine bi def rek léegi rapport bi day dem ci général bi bu jógee ci général bi dem ci ministère de forces armées dama lay expliquer mhm. bu loolu bu c'est-à-dire rapport bi sama chef dafa am taux da lay sanctionner tel nombre de jours mu remonté mu remonté mu remonté malheureusement bu général bi même bu bëggoon mu yem si moom bu fekkee ne ministre bi dafa bëgg def taux général bi il est obligé de faire son taux. pour ko mu romb si ministre bi am na taux boo xam ne bu ko defee dossier bi day wàccaat. non non day yegg. c'est-à-dire ah. si le général arrête à son tour. voilà dossier bi day wàccaat ça s'arrête là-bas ah. la. xam nga les généraux malheureusement larme sénégalaise xam nga on officier da ngay tout toute ta vie. après on te met sous les ordres politicien boo xam ne am ay ordre dafa si si des politiciens parce que un ministre des forces armées boo xam ne xamul dara si armée kooku ay intérêt politique am rek la xam dama lay expliquer quand le général veut mettre son taux même s'il veut s'arrêter là si le ministre veut xam a 60 jours le général il a 45 jours même si le général ne veut pas mettre ses 40 si le ministre veut faire ses jours da koy yóbbul dossier ko defee ba pare on m'a proposé un conseil dañuy désigner cinq officier de la gendarmerie kenn ki mooy nekk rapporteur bi kooku mooy def l'enquête bu defee enquête bi lu si xew ba pare après officier yi voté léegi bu officiers yi voté ñoom dañuy voté si oui ou non on doit me radier les officiers à la majorité ont dit non à ma radiation moi ça me suffit parce que c'est eux qui me connaissent avec eux que je travaille un ministre des forces armées un président de la république ils ne me connaissent les intéresse c'est Et le Moi, haut comme zone euh, Non, le haut commandant, comme je vous ai dit, le haut commandant, lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez qu'est-ce que lui, il fait il, ce qu'il fait, il désigne des officiers. Et même la désignation de ces officiers, c'est un arrêté du ministre. C'est-à-dire, peut-être, ça passe par le général. Comme nous allons voir, les, les gens ne sont pas libres. Mon